gannaaw da ngeen a toogoon foofu di ay kilifa sëñ jaga ne leen sëñ bi nee ñu ñëw nii ndax mu gën a yaatu ñun ñëpp ñu ngeen jàpp li ngeen bàyyi li ngeen jàpp ngeen bàyyi ko te daal di dikk fii loolee day neen lu dolli ko ci seen yéene la yoo xamante ne xëy na bàyyiwu leen ko xool yi yaakaaru leen ko woon kon loolee it te naaju tàng na te da a woor maa ngi leen koy tuumal te di ko génn mm-hmm. waaye mu leer na ma it nag képp koo xëy dox nga foofee ba dikk fii njëggale ngi ci biir dox boobu yërmaande ngi ci biir dox boobu yi yokk aw fan mi ci biir dox boobu yokk taw feex xéwal ko saret ak bët mi ngi ci biir dox dikk gi ak doxu dellu gi nag du man mi toog di wax bu leen ma xool bu leen ma déglu coobare suñu borom la ndax yàlla mooy jël ab jaamam lu ko soob rek mu jaarale ko ca moom léeg-léeg loola mënoon naa jafe ci nit ko lool ba nit ko jafe ne loola wër te mën a am mën naa doon ci saahir mën naa doon ci bëti waaye loola nag nga nga dellu ci yàlla rek nga xayti ni moom moo wax ne innal fadla bi yadillahi ngëneel ci loxoom la nekk yutiihi man yashaa dana ko jox bépp jaam ko soob jaam bu ko soob nag yàlla seetluwut kooku kenn seetluwut foofa kenn ci coobareem rek la ko teg moo xam mag la moo xam ndaw la moo xam góor la moo xam jigéen moo xam ku mën a doon rek ci loxoom la nekk daal la te ku ma soobee ci laa koy def loolu nag fii ne fee dëgguwut ci ñun jullit ñi dana nu sonal lool ndax su boobaa nit mën na man yàlla mën na koo defal xéwlu sëyit nga ne lu tax moom de gone la wërta mën a àgg fenn wala mënta war a def nangam fekk déedéet yàlla waxut foofu may yasha la wax ngëneel ci sama loxo la nekk nga ne waaw muy la ku ma soob laa koy jox mm. coobareem jooju ndax yàlla dalaa wax ni la ñi ma soppkat a ngi nii nga xam leen xam seen tur xam seen tur nday xam seen tur bàyyi boo àggut foofu day képp ku ñu tudd ci yàlla yàlla ci moom tey ca koo séen rek booy dajal ci mbedd me ku rek tey kenn ci lu ñu yàlla denc ca keneen ka des lu nit wax ci digganteem ak boromam it nga def ne nitu Moussa ba muy woote ci yàlla ah waa dëkk ba fenloo ko ne li ngay wax du dëgg ba bëgg koo fitnaal bëgg koo génne dafa am ci jóge fële dikk ne waaw yéen kii lu tax ngeen bëgg koo génne ak lu tax ngeen fenloo ko yéen kay su fekkente ne li mu wax dëgg la njariñ li du leen mooy bu dul dëgg lor ji du ko mooy moom kenn ndax diggam ak boromam bis buñ ay tànkam takk ay loxam yor mu dajeeg yàlla su boobaa moom yàlla ba yéen kay gëm leen du leen neexee waaye bi bu mu leen di fekk sax maandu leen te jàpp seenu jàmbur ci moom ndax loolu mooy yëfi nit kon nag maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm ndax yàlla kat moo nu bokk dajale ñu fii ci coobareem nu bokk fi dëkk ci tund bi loolu coobareem suñu borom la man mën a namaa gën a àdduna ba jóge fi te yàlla du dogal ma dikk fii te bi ma fii dikk it am naa béréb yu yaato yaatoo yaatoo yaatoo yoo xam ne maa ko moomoon yu bari loo xamante ni sa jamono boobu boo fa defoon jumaa nationale bi fanweeri mètre moo dox sama diggante moom booy dugg gaaw waaye fii la soobal yàlla te moo ne boo fi daan ñëw de laay def du xam sax fan fan la yoon yu féete ñëw naa fi ay sant naa fi ba doon saa su may dikk su ma ànd tuuti ci ëpp damay dikk kon loola day doon coobare suñu borom joo xamante ni moo ko nag bu moo ko def kon suñu bokk góor gi nga xamante ni bokkub dëkkandoo la di bokkub lislaam bokkub tëri bi toftalwaat ko loolu ñun ñëpp war nañ bokk di ko sàmm te lu mu gën rafete di yéenante aw yiw di waxlante aw yiw te di ko jëflante te maandu te rafetal te jëm yàlla rek tax ndax rafetal benn jàmm du ko def ko noppi benn jàmm du ko def ko ndax lu ënduna yàgg yàgg yàgg yàgg nga téye salaam yu ci biir mu mën a doon la cay lore moom doon maandu it dulit bi su ko defee ci mbir mu man di doon li nga xam nga di ko jëf li nga xamut nga nga am bañ ca am benn loo cay def wala loo cay wax lu koy am sa maandu jàpp sa jàmm loolay tudal la loolu mukk li ñu lor ñaari ñun ñëpp de mooy di waxe suñu xalaat ak di waxe suñu jot ak di waxe foog na te loolu ko def jullit la ko war bokkum jullitam ci ñun ñëpp suñu diggante mooy rafetal te yàlla rek tax jullit boo seet rafetal jot ci moom yàlla mu ko bind lu ak lu mu denc boo dàqoo ne jaamu yàlla ñëpp it di fanaante jàkka jeeta fanaane nafi la fanaane jàngal fanaane yéen doo koo rek yàlla jëm ci ndax yàlla coobareem jooju ma waxoon léegi doom lay lay jëflante fii de da nga gis koo xamante ni moom nga ne adduna ba tey mu ngi liggéey noppaluwut benn yoon te mënu ko koo tax am nit bu baax hmm? coobare suñu borom la nga gis koo xamante day jóg yàlla ubbi kenn nit suñu borom jox loo xamante mën naa dundal réew mépp am na kenn koo xam ne mën na koo dundal réew mépp am na koo xamante yàlla jox na ko ci wërsëg loo xam ne bit sa Sénégal mën na koo jox te kenn la te defulul yàlla lu tax mu jox ko ko ñum xajit ba nga yaakaar ne war a leen a mën dimbali defu ñu yàlla lu tax mu xañ leen lépp dafa teg koo teg da ci teg ci kon nag yàlla nu yàlla moo ko dimbali te saxal dimbal la te mu nu ci ndog yi ak bakki ak musiba ak balaa yi weeru wi nga xayante ni dugg ci te mi ngi tàggoo ah lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla ko yàlla nangu lépp luñ ci zikki jàng ko alxuraan jàng ko xasida yàlla na ko yàlla nangu te dana ne yàlla fekk ko at yu baree baree baree bare tamaan ak wér ak wérle ak mucc ak mucc le mbaaxam ak yërmande taw xam tudd bii nu dëkkee li yàlla séddale ci ay ngëneel ak yiw yàlla bu ne ci kenn ëpp li zahir ak ci baatin yàlla leen yàlla dolli ak wér dolli leen aw fan dolli leen ay xéewal ci seen jëmm ak ci seen njaboot yiir nu taxaw nu dimbali nu aar nu suturaal boole nu ko ak sunu njaboot te musal nu ci mépp ndog ak bakk ak musiba ak balaata dox suñu diggante ak seytaane te bokk na defal ñu gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërë ngeen jëf ay su boobaa it mën naa def ci dara sayir ci te du teenu ngi am ngi koy dund ngir ku ñu yow fenn da ngay dof wala dangay ngay dee wala lu nañu tëkkoolu ko lu nañu wax ko jëmale ci yow soo demee ba yàlla sagal sagal yoo xam ni ñëpp teg nañ ci seen bët bi kenn ëpp leen ab nag sat ndax bu ñu xëyee leneen am kat lu ne mën naa xew waaye fu ñu xëyee di gën a gis ak cant di gën a gis ak jëm kanam boo xamante kenn natt lu te li ma wax léegi day fii day bi ma fiy dikk Baye Ousmane njëkk mu may daggal fii yaakaar naa ne fii 2009 la ma ko Baye Ousmane Ndiaye daggaloon. yàlla na ko yàlla yokk yërmande lool. ci jant bu fii ci dëkk bi. Hmm. keroog oto bi fii la jaar ci sën bi. nekkoon booba fi ñoo ma jaay ko leen fële ba bàyyi ma ko. Hmm. boobaa tey ab mat na loola la ko jiitu njëkk a ñëw 2001 wàcc fële ci penc bi. Hmm. du ma ko fàtte ko. te bi may sanc si fii de li ma leen ko waxee fee ca ngaw ci wetu Touba mën naa faa sanc ndax Mbàkke Bawol moom ko bokk surtout naa yeneen bi te nga jógee Dakar ci boo demee nam mel ne noonu la mel ma lépp nga ko waaye dama ko faa bàyyi seen moom man booba lu ma fiy dab si lan laa fi dem si bu dee ay taalibe ñu ngi may fekk si foofu di jébbalu lay jébbaloo ci man ca Dakar xaw ma nu mu toll lay jébbaloo ci man ca feneen xaw ma nu kon lan laa fi doon dem si coobaree suñu borom joxe yërmaane ak ngëneel bi mu war a feeñal fii loolu rek la ba fii may wax ak yow am na bu ñu gisee dañu defee na dañoo ñëw rek fekk kër gi mel nii duñ xam tàmbali ba nu mu mel duñ xam cosaan la nu mu mel déedéet ndax nit ñu bari li ñu xam mooy lu sotti ba noppi suñ ñëwee leen ko ne defee ne lii moom tàmbali bi si dama sa mel bërki démb seen mbàggal soxna Mbéyum Cheikh Soye mu nekk fii ci kër ga ci Touba dañu waxtaan mu ne man de yaaram li ma gën a jaaxal foofu nan nga fi nekkoon ci jamono boobu ba tey moo ëpp sans bopp xew ma xel loolu la mënagut a nangu ba tey ma ne ko man ñi di wax ak yow jaaxal na ma nu ma burung loo loolu ba jàll ko mu ne ma ah ma ne ko man ñi jaaxal ndax foo bàyyi ay kilim ku tàmmul kilim xam kilim bu sedd ni mel am na leen bu demoon ci kër bu amut kilim képp du fanaan duñ nellu ci guddi ga hmm. nga bàyyi ko ko ñëw di fanaan koo xam ne tàngoor yi kenn mënu la ko misaal te seng dafa tàng hmm. nga di fa ne ñaari fukki fan ak lu toftal te bi may ñëw fii di fi toog ñaari fukki fan ak lu toftal Dakar dibéer bi jot booba li may jox ci addiya lu mu gàtt gàtt la jege ñeent fukki junni te boobu jamono par dibéer hmm. loolu boo ko calculé ci weer bi mën naa dem téeméer junni lu toftal te gëstuma ko xooluma ko daanaa nekk fii dimanche kenn du ma ko fekk booba lu lay liggéeyloo ki lay liggéeyloo teg sa yaay bi doo xool leen ndax loo xamante ni ànd naag fitna ànd naag ay wax ànd naag ay coow ànd naag lu ne te say ati tukk lu bari lool te booba day man sama wajur gi ma jur sama wajur bu góor wàcc na liggéey sama way sa biir fenn bi ma koy bi damaa bu awu yoon ceeb bu ganaar mu barkeelu ca ba xolam seddu Hmm. mu tëdd ca saal ba dallu mu seddu bu yi ba mu yeewoo ba di dikkaat fii ci dëkk bi dañu sëñ bi dama def ni xel mi am ndax fii daal ndax boobu fii nu toog nii tey mu lii tiim nu ak séng moo fi nekk séng te maa ngi ñoo fi daan bokk di toog te séng bi am na lu ci wadde sax di daj suñu kaw di nu màtt hmm. te tërul ma mu toog fi ne ba suñu borom ko hmm. kon loolu toobare suñu borom la baax ci borom la yërmande sun borom la waaye ñoom ña takk woon nag démb am seenu boy am seenu deugal ñu lañu diko deg dégg lu nañu di ko wax lu lañu deen ko def ñu diko muñ ba ak sifi sama ñom ku kenn bu mako waxe nit ñi war nañ ko xam suma ko ko te nit ñi war nañ ko xam si mooy tax daara ko ma toog ci jataay bi ñu leen tudd waaye maanaam naa ñooy ubbi waxtaan bi rek ma tàmbalee ko ci mo waaye lolu mo jëru ko tax ñepp no bokk benn taxawaay bi no bokk jëm jëf no bokk benn dara hmm. te lii ma lii lii lii tamit fi ne nii ma def na ko dañ ma ko indi fii xale yi bari ki démb ki topp ci sama taw am na ko tudd ndakaaru la amee tudd ma de hmm. fii laa ko tudd fii laa ko tudd ñu dellu doon la doon ji Dakar ndax ah, dama ne ko du ma mën a ñëw mu ne ma kon de sëñ bi dañ la koy indi fii nga tudd ko ñu doon ko delloo fii lañ xëy si ñu tudd ñu dem foofa lañ ko ngéntee hmm. lañuy def cat-cat lépp foofu lañ ko def waaye fii la man de ñëw ma ko andil ma ko waaye xalaat boobu de ci moom lañ ko jógee kon ma ne leen naa leen booleeg sëñ Xaadim mooy sama taaw mag nañ la ko andil ma ne ko awoon naa yéen tudd si ko de mu kon nañ la ko andil fii dañoo xëy Dakar ak seen woote bi ànd ak soxna sama tudd ak comme ni jigéen ñi di daal ndax diggante sëriñ ak taalibe it ma ubbi leen ci. gis nga taalibe bala ngay jébbalu na nga xam fi ngay jébbalu jébbalu it yàlla moo nu boole jébbalu nekkul loo xam ne da nga koy def rek lii daf maa neex wala kii kii kii teg ko ci aada wala fii la sama bàyyi nekkoon déedéet loolu du de lan moo ak njébbal man de dama bëgg a defaru damaa bëgg a defaru lan mooy ak defaru nga ñëw ci ba moy man day seetlu na ni man mi sama diine nama ko wara xamé dess na tawar war na maa xam sama diine ndax ab jullit war na maa gis ko kuma mu ëpp diine ku mën def ci man diine ba ma mëna am diine diine moy lan la ca ñëk moy jikko ju rafet bo xamé ni ñu jullee ak ay atel xam nañu wor ak ay atel aj mak ak ay atel wër wër ko rek atel gannaaw ba nga waxé ñaari baat sédé yi gannaaw na yalla wala da nga judd judd ci xam nga léegi ñu ne wax ñaari baati seede li li liñ la ci laaj moy nga xam ko waaye waxatuñ la nga tudd waye da nga ko wara xam su loolu amee ba nuppi nag ah, nit mën naa am xam-xam te du ko tax a defal ndax mën nga rëy mën ngaa gis sa bopp mën ngay njistal mën ngay fen mën ngay rambaaj mën ngay wax lu du dëgg mën ngay jëf bëgg ñu di ko tudd mën ngay jëf ba noppi di ko tuddaat te yooyu yëpp da yàq ay jëf nga wuti nitu yàlla koo xamante ni daf lay tarbiya ab sëriñ dafay tarbiya ab sëriñ dafay tarbiya nit ki ba mu amee jikko ju rafet ba fii ne bu gisoon ko baax dana ca mën a jariñu bu gisee ko sa ko safaanoo baax sax dana ca mën a jariñu ku njar dëgg ci diine tarbiya ko du gis boppam mukk mukk mukk mukk mukk ci lu toll dee dee bi du rëy mukk lu jàpp ni moo gën kenn ci genn anam ku ñu tarbiyee ci yàlla su amoon ay milliards keroog lay gën a defar du gis dara dara dara ci loola ndax day gis ni dénkaan na lu ko yàlla jox te du koy fabaat kuñ tarbiyee ci wàllu yàlla du jàpp ni moo gën kenn du doon ci juddu du doon ci lu am du ci daraja du doon ci xam ndax day gis ni ci coobare suñu borom la ci la koy def kuñ tarbiyee ci wàllu yàlla du fenn ak jullit fi mu du fenn yonent bi sallallahu alayhi wasallam laaj nañ ko ndax jullit dana sàcc mu ni mën naa am mën naa am mu def ko jullit dana njaalo mu ni mën naa am mu def ko di ko yu bari waaye ñu ne ko ndax jullit dana fen dafa ni ñokki du taxaw na jullit bu fen fen dañ koo woye fa toy bu set nga wax ci nit loo xamul dara lu la dara léeru dara wóoru la xamoo te dara fen mu gëna bon gaara xuuf ku ñu tarbiya du lekk alali nit su lu tiibu nafs ci lu tey bakkar kooka ab julit du añaan ku ñu tarbiya du añaan añaan mooy lan yàlla def na ci kii waaye man da yàlla lim ci def neexuma yàlla nte woon sax mu deñ bu dikkut ci man nag yàqu mala mu dem ci keneen loolu ab julit du ko def ku ñu tarbiya yar ko dëgg bu dem ku ñu tarbiya yar ko ci diine duñ gis tar ñu jëf ngir nit ñi li ngay jëf lépp yàlla rek kay tax nga di ko jëf nit ñi duñ la tax a jëf duñ la tax a bàyyi loo nekk nekk nga ca boo ci wéet nga wéet ca yow dong moom ngay yemale ak ñëpp fekk la ca doo doo ragale wéet ci dëgg doo ci bëgg wéetal ndax fi ne ku ne ci ñun bi nga ñëw ci kaw suuf yow rek la sooy demit yow dong la li wax ñu bari bari bari kenn ñu yow dong la lu gunge ba sori sori sori ci buntu pax bi dong ñëpp la ku ne dellu ci yitte ku ñu tërbiya du rambaaj dem fekk ab diggante ñii lay seen diggante rattax na lool bëgg a jariñoo kii tax nga bëgg te xam nga ne bu àndee kee njariñ la dara mën na caa sooxe wala yaa ngi cay fiir nga bëgg ko yàq nga bëgg a yàq kii te loolu yaatu lool te bari lool ku ñu tarbiyu dëgg du rambaaj noonu nga koy toftaloo te xeeti jëf yooyu yëpp nag ma wax lii muy rambaaj ak réer ngistal ak kañaan yii fi ne boo loo julli julli julli julli julli julli dara def ci ci yii yàpp julli mu kuy rambaaj bi ñaan lukkul yàlla na kuy fen bi ñaan lukkul yàlla na koy ngistal du ñaan mukk lu yàlla na ku rëy du ñaan mukk lu yàlla na sëñ Tuubaa li mu njëkk mu li mu mujjee bind ñu leen jigéen ji dénkaane boobee ku ko yër danga ci fekk xadiisu Muhaas ibnu Jabal Muhaas ibnu Jabal yonent bi sallallahu daf koo dénk ne ko lii ma lay dénk soo ko sàmmee da mucc tey da nga mucc ëllëg soo ko sàmmut na la wóor ne sànq la sa dund ëllëg sànq la sa dund mooy hadis bu gudd ma nga tàmbalee ci loo man di def ci julleeg woor ak jàng alxuraan waaye yaa ngi benn tomb rëy jëf ju ñu jëf fi ne tey suñu jëf gi ñu yendoo tey bi ñu yewoo ci sunu lan lii nuy fi fi ñu jaar fépp tey jii su jant bi sowee am na lu koy jël di ko yóbbu ci asamaan yi ci kaw su ko yóbboo asamaan su njëkk si am na malaayka mu fa nekk moo xamante ni dañ koy gaaral jóg bi li ko yóbbu danaa ko taxawal mu taxaw mu ne ko ma xool li nga yore mu tànnal bi noo ngi yendoo koor mu ne ko koor de ngi nii amaana wee yendoo nga wax lu dëgg amaana yendoo nga leneen waaye yooyu yëpp li nga yendoo ci saraxe koor geeg joxe geeg julli geeg lépp bu ko xoolee gis te benn tomb bu ne sa xol bii ki doon jëf-jëf ji dara tomb rëy mi ci xolam bii mu ne fa la jëf ji dëpp suñu borom digalu ma jëfi kuy rëy di ma romb di ci kaw ëllëg nga jëfaat jëf yu bari saraxe naa fii def naa fii lu baax wax naa fii lu baax seeti naa am mbokk maa ngi doon jàng alxuraan maa ngi doon tudd yàlla maa ngi doon istixfaar lépp bi kii yóbbu jëf ji bu ñëwaatee jël amaana dana romb asamaan su njëkk si ndax gisu ci foofu rëy la fi doon xool waaye yow doo nit ku rëy waaye nag moomoo saw làmmiñ de bu demee ci asamaan ak ñaari si bu wérifee naa jëf kii de lim yendoo woor ak yendoo jàng alxuraan ak yendoo jàng xasida yendo yendoo yendoo yendoo waaye tëye du lam dëppal jëfi suñu borom suñu borom digalu moom yenn jëfi kuy wax lu dëgg ci borom bu di jëm ci kaw boo liggéey nga aji màkka wala nga umra ji mbaa nga defi loo bëgg defi ci lu xeeti baax baax yépp nga def waaye fekk na yow sa xol bii kañaana ci boobu nanguwoo dogalub yàlla ci kenn nanguwoo dogalub yàlla ci benn jaamam moo xam yàlla da koo jox daraja moo xam yàlla da koo jox alal moo tax yàlla da koo joxum njaboot ak xéwal yi yàlla jox ab jaamam yépp rek nanguwoo ko ndax kañaan rek bëgg loola dañ nga àgg ci sax du yem ci kañaan bu nekk sa xol de waaye dangay àgg sax di wax ab safaan di ko jëmale ko mbooleem la ak koo mën a doon lii may wax ci saa bopp laa ko tàmbalee kilifa nga nga jàpp ni moo la gën a rëy soo toogee moom muy tudd nit jàppal ni matut lam doon ndax kooku daa war a dindi loola ca nit ñi waaye wóor wóor wóor caat góofu mu topp boo demee toog ci ci nekkut fii cëb safaan mën a la waat ne sëñ la waat loolu gën kilifa mënu ko def du genn kilifa boo gis mu toog di tudd nit fu mu nekkul ak di wax ci nit leneen du gat maa wax la ci saa jëmm ji daa ko tàmbali man ahmad kilifa du def loolu kilifa fu tuddi nit lu baax rek ca war a teg boo xamoon ci moom ab safaan sax da ko war a muur loolay kilifa yar ca it sa njaboot loolu mooy yëfu kilifa noonu na suñ borom di toftaloo jëf yi ba ci juróom-ñaareel bi asamaan xeeti jëf yi ma tudd yëpp bu ci nit amee lu jëfam rëy rëy rëy rëy rëy ci wàllu diine jëf jëf jàll fa kon bu ñu naan tarbiya dalay yar ci ba yii yàq ay jëf yëpp nga mën ci mucc su boobaa ak defaru dafay dari dikk boo jàngoon wenn bayit bii wala nga bee benn aaya wala nga saraxe lu mu tuutu day yegg te sëñ Fallu ko neewoon na ñaar ñaar ñaari balance rek ka fi nekk bii moom boo ci tegul dara bii loo ci teg lu mu tuut tuut rek mu war waaw bii boo fexee ba dara tegoo ci fii loo fi teg lu mu tuut tuut rek mu war kon ñoom ñii loolu la ñaan àndee ñoom ku ci ne ci leneen rek yaa ci nekkal sa bopp waaye bu leen di fen bu leen di rambaaj bu leen di wax lu dëgg bu leen di jëw bu leen gis seen bopp bu leen rëy bu leen añaan bu leen gis tal bu leen wax lu dëgg lii mooy ndénkaanam say bokki tali bi yëpp dee leen jàng alquran dee leen jàng xasida dee leen tudd yàlla léeg-léeg bi bu tàmbali tudd yàlla da ngay dox da ngay dugg fii da ngay génn fa xayru tahaami lil muridi saaliki dawaamu dikri sil jalali maliki ngën gi ñam ñen murid bu sóobu ci yoonu yàlla mooy tudd yàlla saxal tudd yàlla léegi nag ñun ñu ci bëri jàngul boo yoree kurus tey nag nañ waxante dëgg ba dewaa kilifu gu ñu toll topp te ëllibaam sax dafa tugut dañ koo topp ci aada waaye ëllibaam laa la wax dafa tugut te loolu lu ñu war a xam la lu ñu war a xam la muy doone ah sëñ Modou dégg ni Mbàkke sant di waxu jur dee dëgg wax tabare rijaala xam na suuba loolu sëñ Touba jàngale kii ne danaa war a seet ba xam man su ma toogee ci jataayam lan laa fay dolli koog lan laa fay jariñoo ci sama diina ak sama diggante sama borom loola tax ñuy topp nit loola tax ñuy waaf ci kanamu nit yàlla rek lay doon ak sëriñ bi te loolu yàlla boo ne yàlla ak sëriñ bi boo ne sëriñ bi yóbbaale na yàlla nga ne na sëriñ bi yonent bi te nit it lu muy wax lu ne it ah yow mi amum xel di dégloo déglul ba xam li mu wax nii ba wax ja daanu lan moo ciy njariñam ak lan moo ci sama njariñ man kilifa koo toogal muy wax ak yow. bàyyil ba wax bu waxee ba daaneel seetantalal ba xam man kii li mu wax man lan moo ci sama njariñ ak lan moo ci njariñam mooy tax li nu war ñun ñëpp mooy gën a góorgóorluwaat te gën a farluwaat ba li ñuy wax rasaa'ilul qalb mu mën a denc ci noonu te rasaa'ilul qalb kat sëriñ bu matub sëriñ moo koy dindi ci nit waaye nit ki fi ne koo mën a topp ci kaw suuf kilifa bu mu mën a doon laa la wax nga topp léegi-léegi nit ñi du la dikk tus te sëriñ boobu mën a dox sa diggante ak xaq yooyu nga amee nit ñi buñ takkee say tànk takk say loxo di dugal ci biir bàmmeel ku mën a ma sëriñ Tuubaa mi nga xay moom lañ bokk gëm nun ñëpp topp ko nun ñëpp yaakaar ko nun ñëpp mun ta dox suñu diggante ak ndax dafa am lu mu digal am lu mu sant bind ko mu leer naañ dénkaane ko ñi ko fi toogoon ñëpp di ko wax bis bu set fi mu xëy nu wàcc ko fee yaakaar ne ak comme mën a doon ki aju ci ko sant Mbàkke ku aju ci ko sant Busoob Jaxate Jóob Njaay xaal kilifa ga nga àndal war man ngay sa bopp ndax amaana nga tooñ koo xamante ku ne del maan del rafetal ndax lay war a doon ab santaaneem mooy wéetal leen yàlla jaamu leen yàlla maanu leen rafetal leen jàpp seen njàng ci mooy am mooy tax nañuy wattandiku jataay yu amul njariñ yi su làmmiñ wii ah nañ ko téye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wax na ni ëllëg ca sawara ñëpp boo leen laajee lu leen indi sawara sii ngeen ne seen làmmiñ wi la lu ma dugg loo ci dugal sama làmmiñ mooy tax nañoo tudd ko noppi noppi ku ko def mucc man samata najaa loolu yonent bi sala wax ku noppi mucc waaye booyal sawlaam rek ci nit loolu neex nga wax jëmale ko ci te ko fenn ah ku ne wax na koy daw bu ne wax na daw moom Seydina Abu Bakrin da daan jël ay doj yi sëñ Tuubaa moo ko ñett yi ay doj yu sew la daan jël di dugal ci kii mi ne mbam fees del del del del ñu ne ko yuluwuloon mu ni bañ a wax rek fekk nañ ko mu téye aw làmmiñam di ñoddi di ñoddi di xëcc di ñoddi di xëcc ñu ko waaye lii lu mu doon mën a kii lu ma dugal moom ci dugg nañ noppi te koy déglu nay ku lay dimbali ci sa diine ak sa adduna ju rafet adduna ju lay jariñ kooy toogal ku ne it nay jataay boo xamante ni dañ ca dolli ko ci sa wàllu diine dolli ko ci xel mu rafet mu lay jariñ ci wàllu adduna wala tujalis khayran bihi tusaddinan wa haqlan abadan tanal murad mo jek wala kun ko xay da nga doni ko ci mom xel mu sel mu rafet da nga doni ko ci mom diina ju rafet nek bu di deug bo xay roy kay gay do ak sa pam lay do ci sa jëf ci sa wax ci sa tax kon lolu lepp nañ koy bayyi xel kañaan nak ak bëgg dara ja mo sonal bare bare bare waa ñu ñu tudd ay kilifa ñoo ci raw ñooy tamit bari ko wàll ñoo ñu waroon a wàll jikko ju rafet wàll leen baax wàll leen woyof wàll leen ñàkk rëy ñoom lee moo fees ñoom dell ba dañ koy wut wàll walla ndax jàngoro la jàngoro day wàll te jàngoro yii nag ñoo gën a bon jàngoro yi rëy moo gën a bon fopp jàngoro yi kañaan moo gën a bon fopp jàngoro yi gistal moo gën a bon fopp wax lu dëgg moo gën a bon fopp jàngoro yi waaye yooyu yëpp day dana wàll ni jàngoro yi wàll fii ne nit bu ñu ne woon jiw mii day amee na feebar buy wàlle masalan tey feebar bii xewoon bu yëgul rek ñu ni day wàlle nangam ak nangam ci day wàllee ci joxe loxoog wala nit kii di tisleeg wala nga toog ak moom ak nangam kenn ku ci nekk yaa nga cay daw loo man ngir daw sa daw waaye jàngoro yii nga xamante ni bu la jàppee te tàqalikoo moom fa mu lay jëme maa di tey lu mat a tamata bàyyi xel kon nag yàlla lu yàlla dimbali defar lu ba du wees a yàq làqul fi yàq yëgut waaye am jullit daal day rafetu xol lu yàlla def ci mbokkam buñ ne ko woon na dolliku tam aju ci yow mu ne bismillah ngir yéene gum ko yéene bala ngay solal kenn mel ni mbubb natt ko waay moom bu mu mu jekk ci yow rafet ci yow bu jekkee ci yow rafet ci yow koo solalati baax na waaye bu la wóoree ne jekkut ci yow rafetut ci yow bul ko solal kenn loo bëggut ko yow waaye bul ko jëflanteeg kenn loo bëggut ku la ko wax rek bul ko wax kenn gis nga nit it soo ko defoon soo ko gisoon laa la wax gis gis laa la wax nga xam sa bët la may muy jëf ak safaan nga xam kenn waxulu ko yaa ko teg sa bët maandu ca ndax gis nga ab safaan léeg-léeg dana yóbbu nit aljana ne bu sëñ Tuubaa jàngalee ci Masaalikul xam nga nu mu la yóbboo aljana nit léeg-léeg dana am rëcc rëcc rëcc bu xam ne bu ko gaaree duutul mën a te gis ay jëfa te fu mu toll day tuub rek day jooy rek di am lu ko metti rek lu mu jëfati xeet amaana bu ko defutoon nag mën naa gis mu defe ne dara na moom ay jëfam yàqu <coughs> kon yow ma tek sa bët ci safaan boobu man ngaa tek sa bët ci safaan fekk safaan bii nga tek sa bët ci kii kat safaan bu koy yéege ci yàlla la sax te yow ko te nit ku ne fii nag ak dundam la ca ëpp solo mooy ak mu jëm suñ njëlbeenu dund yi am na solo amul solo ndax fi nag ku ci ne ci ñun ñii yàlla am na fu ko bind ba nag xam xamoo fan la yonente bi saa dafa wax ne ñu dina jëf-jëf yoo àjjana jëf-jëf yoo àjjana jëf ba seen saa seen saa mën nga ni seconde mën nga ni minute mën nga ni waxtu dese ko ci kaw suuf mu jëf-jëf yoo ba dem ca safaan ba ndax bind goo di jëf-jëf yoo sawara di jëf-jëf yoo sawara ba benn saa dese ko ci kaw suuf mu jëf-jëf yoo àjjana dem àjjana waaw kon ki nga gisoon mu doon jëf lu baax te àggagut te saa sa mu jëfe ab safaan rafetal ci moom jot rek waaye xamoo fan day mujj ak yàlla kii nga gis mu jëf jëfi safaan te jógagu fi ba tey rafetal ci moom jot rek ndax xamoo fan lay mujj mooy tax ab jullit li ko war ni nga amee kumpa ci sa bopp amee ko kumpa ci sa mbokki jullit yow daal sa njort na rafet ci yëpp rek xéewal yàlla yi dafa yaatu lool it nag yërmaande yàlla yi dafa yaatu lool it nag bul ko jombale kenn bul ko xañ kenn ci sa wax doom mooy tax kon nañ góorgóorlu bu baax di jaamu yàlla suñ kem kàttan bu rëcc rëcc amee ñu tuubal yàlla yàlla moom fee tooy wu yuqatu noonu taay bu yuqat ci duñu jéggal duñu jégguloo te te moom rekk tax lu bàkkaar bari bari bari bari bari saa suñ tuubee rek suñu borom mën nañu jéggal kon nag maa ngi dellu di santaat ñëpp mm-hmm. di gërëmaat ñëpp te ñaanalaat ñëpp jàmm yokk mm-hmm. réew mi yokk su tëdd sax mm-hmm. te suñu borom bu sëñ ci ndox ak mag ak musiba maa ngi delluwaat rek di di baalu àq di baalu sama tuub di yeesalaat sama baalu àq ci ak ci lu ndax àq dafa sew waaw kay jërëjëf